waaw bala maa kii bi naa rebondir. da nga bëgg a rebondir fële allez-y am na lu fu mu wax Sonko programme Sonko hmm. amul programme. wax ju neex la am. wax ju neex programme bokkul ay promesse ak programme du benn day promesse day wax rek Sonko day résumer sax lam doon diggee day koy résumer waat ñambaas ci tuuti tàngal ceeb am na nag benn arme bu koy défendre. est-ce que xam nga lu tax Sonko xam na ni moom ñi koy défendre nii. mënuñu mënuñu hmm. sat mënuñu ko satisfaire. xam nga lu tax. lu taa daa bari dofa ki naafiq ñi koy défendre. Hmm. ñi koy attaqué nag ñépp a crédible. Hmm. te ku ci dóor mu dal. parce que day dugg automatiquement ci bopp nit ñi. ndax dañuy jël fee dañuy jël histoire indi. booleeg lii tiire. mais Nguer est-ce que wax Sonko amul programme c'est pas trop bu ñu xoolee ni mu campagner. gis nga fu mu dem pôle yi toog tas li mu war a def ak li mu bëgg a def loolu aussi déggoo nee naa la Sonko day def ay promesse ah loolu dige la du programme du ko réaliser ku la waxoon heure bi réew mi nii Sonko ni ñu toog dinañ toog di ko critiquer nii ci yaa fi waxoon lii doo ko gëm heure bi daaw est du yéen a yàkkamti rek en toute sincérité nag dañ waxante dëgg est-ce que du yàkkamti rek surtout nag mbiru transhumance mbiru bonne gouvernance mbiru ñàkk farfarloo Sonko bu ñu demee ba nommé nit ndax compétence Samba Ndiaye mu toog di ci wax mais loolu c'est ridicule pour moom mais genre yi la jël ñu koy défendre su ma toogee lu ñu teg man ni gën a ñàkk xam-xam ci ñi contre Sonko man man maa maa ci gën a ñàkk xam man ci boppam maa leen di démonter pièce par pièce di leen teg ñuy wax ba pare ma naan la lii nga wax du dëgg ndax lii lee nga waroon a wax indil leen lu tax waxoo lee nga toog dingaa ngaa nga ñeppi sàkkaa ñi ci des. léegi si léegi nag problème boobu la am problème boobu la am problème boobu la am problème ko défendre te nekk nit te doo ko te te xam fi nga koy ngeer nga foog Sonko rafle na loolu ngeer que moo tax muy tontul boppam la Sonko di génn di tontul boppam di tontu ay xurum xaaq di tontu ay Cheikh Thiam di wax ci ay condamnation amee ndooy di wax ci pasti ji mais y a problème yooyu foo ko ah, gis rek parce que def na effet de parce que kenn c'est-à-dire li mu wax ne moom laay màcc convaincrewul kenn convaincrewul la yow convaincrewul kii ak ni mu doon sëqat sëqatloo convaincrewul parce que xoolal. yow mënoo bàyyi lu Sonko def. def na ko dama ko xam. def na ko ba pare mais amu ci résultat bu positif. Ah, bi mu naan bi keroog bi mu naan li sëqat sax ñëpp a ngi reetaan démb sax xoolal démb. wax na lu garaaw mooy bërki démb di wax mu ne non faaw ngeen déglu ma nag fekk xar que duñ déglu sonko man toog naa la fii ne la ñuy dégluwuñ sonko jëmm ji rek leen ma naan leen faaw ngeen di ma déglu nag cest parce que man nee naa ko ñuy dégluwuñ la li ngay wax ñoom duggul seen bopp xam nga maanaam peut loo xamante ne dafa euh, euh, ngeen déglu ma moom moo la gën a xam ne ñii dégluwuñ ma dañ maa faa cest à man bu ma sëqatee sëqat nañ su ma tisoolee tisoolee nañ su ma ëbbalee ëbbali nañ su ma solee mbaxana ñu sol ko su ma wéqee taar ko ñu wéq su ma dawalee vélo ñu dawal vélo parce que loolu fans club la. mais aay wuñ ko ci politique. non fans club la loolu ay ci politique fans club mooy def loolu fans club mooy def lu waa ji def mu def ko alors que nit kenn du ko toppee noonu xam nga nit noo koy toppee. Hmm. jikko ak jëf. mais boo ko dee topp lu mu def def na ak lu mu def bëgg naa c'est-à-dire génn nga ci mbirum humanisme. est-ce que yaa ngi ma la xaaral xaaral xaaral boobu loolu bu la dalee rek yow génn nga ci jikkooy maanaam yow moomatoo sa bopp àndatoog sa sago moomatoo sa bopp boo demee ba ne diw lu mu def neex na ma c'est-à-dire àndatoog sa sago tayatoo ko mbëggeel gi ëpp na ci yow ba te mbëggeel boppee dalay gaañ dina def ba ko mooy dafa am def def dina la mën waa def def gi moom ñu nooy bopp yi nag ñu nooy bopp yi moom ko jàpp na la. bu doon def def la yow di nga rëcc Sonko. Sonko barki Serigne Saliou bu xëyoon ci man du fanaan bu xëyoon ci man pour defal dara mën naa koo barki Serigne Saliou bu xëyoon ci man bu doon def def la waaw defuma la xa. Mm-hmm. waaw yow sa sa lii du hasard. nit bu ne laa boo demee ba tëddee sama yaay bëgg naa kooku kooku loolu loolu doo tuddee. justement parce que foofu dama jàpp cofeel googu yàlla cofeel googu amul fenn. non dama jàpp ne est-ce que. ñu mel ni yow ak ñi toog ci plateau yi ñoo poussé booy yi ci extrémité boobu parce que yéen saa su nekk ay gaafu Ousmane Sonko rek ngeen di ngeen di wër di ko gis booy nag dem ba sës na leen peut-être léegi loo leen wax si moom bëgg nañ. jàppee woo ko noonu non non jàppee ko noonu. d'accord. nit mënu laa pousser ba ngay def yenn parce que matoo kon am de nit warul la pousser pousser pousser pousser ba nga àgg fenn fi ci liw lu mu def bëgg daal. maanaam pour noppal leen loolu nit bu la cee warul sax loolu waru ci lay pousser sax. Hmm. parce que mata di la quand ba ngay jël sa waajur bu jigéen naan même bu ko tëddee woon baax na ba ngay lal deram di ba ngay lal kiyam di ci julli. am na ñu wax loolu nga. du jeex parce que fi benn waay yoof mu ne man bu ma dee bugguma benn sëriñ yu jullee ma yoof barke yonent yàlla Muhammad mu ne Sonko la bëgg mu jullee kooku àgg na. loolu lu si ne. ah Sonko bu dee bu ko matee kay. waaw lu ci ne lu ci ne léegi. non déedéet dañ lay wax lu ci ne. non yow ma mën na laa jullee. waaw déedéet dañ lay laaj. waaw xaaral yow ma lan lan la ci ne. waaw bàyyi ma yow ma mën na laa jullee. dama lay laaj. waaw xaaral man dinaa ci ñëw lan lan na ci lool mën na laa jullee waaye man moom du ma jiite te jumaa jumaa Mouhamed nii bu ko matee mun naa jullee nit waaw bu ko matee waaw imaam yi nekk ci dëkk bi yëpp ñu tànn Sonko muy jullee néew bu may bu ma am baat man loolu de kon dëj ba rayante lay mujjee yow jàng nga alxuraan sëriñ damay laaj yow jàng nga alxuraan. jàng naa waaw mas ngaa fekk fu ñuy tànn imaam xëy na mosoo ko fekk. waaw fekkee mu ko. ya ñuy laaj ki sonk mënu koo doon. xam naa ne gaayam yaa ngay daanati gàngiri dama ne ma kon bind nañu gaa xaaral ci la bokk dinaa ci ñëw Sonko maandu dinaa ci ñëw waaye ma ñëw maandu yaa ko wax de yow yaa ñu yab dinaa ci ñëw yow yaa ñu yab sax di wax loolu <laughs> gis naa keroog entre parenthèse ñu bindal koy kaamil jox koy kaamil yu bari ca Mbàkke ak ay xasida mhm. di ñu jéem a fooye ak ay yu muy yëkkati ci mitin xaaral di ñu jéem a yablu di ñu jéem a fooye di ñu wan ne waa ji daal xaafisul Qur'aan la kenn weddi wu ko de waaye laa taqal buusi naa day aaya yoo xam ne xale yu tuuti sax dañ koy fooye xanaa boobu naan na ko comme ndox. ngeer bul delluwaat ci. waaw dama duma ci dellu damay ñëw ci kaamil. non déglu rek problème problème problème fa nga bëgg a dugg. waaw xaaral boobu a kaamil yooyu yàlla dogal tontoo gu ma saay saay yooyu. dama ne dama say laa am occasion tontu leen dama ne. sëriñ nii laa wax moom fekkiwul fu ñuy tànn imaam yow danga ne maandu bokk na ci critères yi. Sonko ban jikkoy maanu nga gis ci moom. laaj naa la ko yow. ah yow mi na maanu kay. laaj man néew ma pour tontu kaa gisut de dama kaa gisut. Hmm. kon wàcc nañ. mokkal na alxuraan. wóoru ma waaye boobu daa doyut bu loolu yëpp bu maandoo mokkal alxuraan. Hmm. mokkal hadis yi. lu mu néew mokkal hadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp laa wax yëpp ba pare même daa am benn taas bu ne ci moom mooy daa am aw xas te imaam du amoo xas. dégg nga ko. Hmm. foofu nag laay yem imaam du am aw xas. moo tax ñu ne baar bi tey bu nekkee ni ci trottoir bi yow imaam bi boo ko mënee jaaral ca trottoir bële daf dañuy bañ ab saay-saay gis la ne ci baar bi nga jóge waaw pour pour taasal léegi entre parenthèse loolu xas bi ñëpp comprendre nañ xas bi léegi. d'accord léegi xas bi. comprendre nañ xasida yu ñu ma ne dama ne ñooñu ko jox maanaam suñu bët yi lañ bëgg a muur. te wan ñu kii ku sell la te yeneen yi duñ ci dugg moo tax ma leen di xamal ne yéen seen bopp ngeen di nax seen xel yi ngeen di jurgóot di ko coxotaan hmm. ñun ay boy taamu lañ Ndakaaru lañ dëkk. maanaam. xam nañu ruq yu bari foofu laay yem ak ñoom ñoom borom kaamil yooyu. xam nga ruq yu bari c'est-à-dire. Ndakaaru lañ dëkk foofu dajeeg moom baal ma yem foofu rek. Ndakaaru lañ dëkk xam nañ taamu bi ni muy demee. da ngay lëndëmal xel yi. waaw baal xel yi xel bëgg a lëndëm mu ngi lëndëm. xel yi bëgg lëndëm mu ngi lëndëm. léegi jàll ci sa question pour taal xel yi kañ leeralal. fan booy taamu la jàll ci bi xel yi bëgg a lëndëm dina lëndëm. question bi dégg ko moom mooy du défunt Amadou Moussa Mouhamadou Moustapha Ba euh, mujj nañ joxe ndigal pour ñu denc ko tey moo nekkoon levée de corps bi bi jotee foofu la ci hôpital militaire bu Ouakam. waaw